tili askan wi. Mm-hmm. ñu ngi xaar ngir tasaare diine ji. Mm-hmm. ñu ngi xaar tamit ngir àggale mission suñu borom bi subhaanahu wa waaye mbokk yi Serigne Touba dafa waxoon sama lépp kiimaan la. Mm-hmm. xoolal fii lii mu wax. ilaahi. ilaahi. dafa wax ne ilaahi. ilal muxtaari. maxtaaro husrifan. wasalli bi taslimin alayhi wa sharifan. lu mu ci teg. ilal muntaqa. waaw nga xam ne mbiram lépp rek dafa dafa yéeme boo koy ci xam-xam bay di léegi nii la ma dikkal rek ma xool ko hmm? am sëñ bi ni ilahi ilal muxtaari maxtaara husrifan wa salli bi taslimin alayhi wa sharrifan ilal muntaqa awsil sururan wa qaddiman wa minni taqabbal xidmati wal taaziman xoole ilahi yow yàlla isrifan soppil maxtaarahoo lam tànn ko ilal muxtaar yi jële ko jël muxtaar mooy seet si yéen muxtaar rek wasalli bi taslimin alayhi wa sharifan ta nga ta ta nga yonente boobu di muxtaar te ñu tuddee seet nee na na nga julli te sëlmal ci moom te nga te nga te nga sellal aw askanam waaye nag ilal muntaxa bu boobaa bu boobaa nag ba loolu am na nga jël yëf ilal muntaxa yóbbu ko ca muntaxa ilal muntaxa aw sil aw sil sururan wa qaddiman wa minni taqabbal xidmati wal tuaziman macha allah ay sëñ bi lii leer na waay mu ne ilal muntaxaa na nga jël liggéey bi joxal ma ko muntaxaa awsil na nga àggale na nga àggale sururan mbégte yëpp nag waaw ah, mbégte yëpp mbégte yëpp Cheikh Mouhamadou ñu tudd ko am mbég al Bachir kiy bégale sëñ Tuubaa ni nanga nga àggale fi muntaxaa mboole mbégte yëpp wa xaddiman te nga jiital nag yow yàlla ma yaa nga jiital wa min nii ak ca man nag taqabal na nga nangu xidmat yi sama liggéey na ko nangoo ci muntaxaa wala tu aziman te nga màggal ko xam nga lii du yëfi nit lii du yëfi nit ndax yëfi nit xel da koy peeg xel day peeg yëfi nit xam ni fii la commencé xam ni fii la yem mm-hmm. waaye yëfi suñu borom moom kenn mënu koo peeg xam nga émission bii di weesu damaa waxoon benn wax. Mhm. damaa wax ni mag ñi fi suñ mag ñi àndoon na suñ Tuubaa mhm. dañoo dañoo fàtte seen bopp. ñoo fàtt seen bopp dem ci suñ Tuubaa ndax dañoo gis suñ yàlla ci suñ Tuubaa moo tax maam mbirum suñ Tuubaa mbirum suñ boroom la li tax mu naan ki ma jaaxal mooy ki ma bañ. Mhm. ndax damaa xamul nan laay def ak moom. lu waaye man di wut ci man bu ñëwee man na ko faa fekk moo xam àddina la moo xam alaxira ndax suñu boroom a fi nekk. waaye ki ma jaaxal mooy koo xam te ni damaa bañ waaye ki bañ sëriñ bi mooy koo xam ne koo xamut rek nag naar ba nee na koon ku la bañ daf laa xamut waaye ku la xas xam du la bañ ndax kenn bañut lu baax waaye bayit yi moom ci ci ci ci miracle Sëriñ Tuubaa la bokk mhm. ilal ilahi ilal muxtaari maxtaarahu sarifan wa salli bi taslimin alayhi wa sharifan ilal muntaqa awsil sururan wa qaddiman wa minni taqabbal xidmati wal tuaziman xam nga sànq wax naa mhm. benn wax mhm. nee naa Cheikh Sidil Mokhtar mooy setu sëriñ Touba bi fi mujj ci koo xam te ni mujj naa noyyi ngelaw loo xam Serigne Touba noyyi na ko ndax 1924 27 ñetti at la 24 25 26 27 ñetti at ba ñeent kon fekkente ne Serigne Touba donte ñetti at la ak ñeent at waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha fekkente ne fekkente ne sëñ bi kon moom mooy set bi njëkk a ñëw ginnaaw suñ Touba ma ne sa ko wax hmm. comme radiallahu anhu nekkee woon sët bi njëkk a ñëw ginnaaw doomi Sëriñ Tuubaa yi manees nañu Cheikh Mamadou Mountakha mooy sët bi njëkk a ñëw ginnaaw Cheikhul Khadim lii nag ku amatub seetlu doo ko mën a bàyyi xel léegi bu fekkee Cheikh Mamadou Mountakha xafisahullah wa raahu dafa ñëw tudd Mountakha an naqaaw naqaaw mooy lu set lu set loo xam dañ koo segg ba mu set wëcc mooy an kon bu fekkee dafa ñëw ci jamono mm-hmm. jamono jooja mbirum sëñ Touba képp koo xam te ne ci dereti sëriñ Touba nga bokk ci maam mu jur sa baay mbaa mu jur sa maam ci nga xam te nii nekkoon nañ ci jamono joo xam sëñ Touba ci ñëpp jeex nañ jeexee ci Cheikh Ahmadou Mountakha maanaam mun ataf la ab jàdduwaay la bu bu dangereux ndax nag jamono joo xam te nii ku gisoon sëriñ Touba ci ay sëtam wala ku xamoon sëriñ Touba ci ay sëtam wala ku dund rek sëriñ Touba ci ay sëtam nekkatu fa day nekk jamono joo xam jamono jooy waar kon nag jamono yi ka war a ñëwaat nag di di moom jamono jooju kon bu tuddee muntaxaa xel yi war a dal kon bu tuddee muntaxaa kon xel yi war a kon li ma bëgg mooy murit nii mbir yu mel nii dañ mhm. koy jàngat di ci bàyyi xel ndax dana yokk seen pas-pas naa tax ñu xam ne liñ yor du du hasard du luy ñëwee par hasard rek waaye mbir la moo xamante ni suñu borom moo koy séddaleel boppam mhm. kon mbégte moomu sëriñ sëriñ bi wax ni bu muxtaar paree nañ ma ko joxal muntaxaa mbégte moomu kon mooy mbégteem Cheikh muntaxaa bi yonente bi daa wax suma ko fi wajhi axiika sadaqa muuñ ci kanamu ab jullit rek ab sarax la Cheikh oh. Mamadou muntaxaa foo gisee muuñ la njëkkee rek hmm. xool li wax mu ni bu fekkoon bu fekkoon Cheikh Siril Muxtaar ay bakkan ñoo koy jot kon maa njëkk daanu hmm. te dinaa daaneel ñu bari kon naa faagal ñu bari hmm. lii mooy ak bëggante ci yàlla lii mooy ak bëgg mission bu sëriñ borom lii mooy bëgg lu baax waaye eh, waa Daaru Salaam tey mhm. cent cinquante millions ñu indi ko daa ko indi depuis jamono si amoon Cheikh Moustapha Al Karim mhm. boole ko almet ndax ne saa yi ko joxee dañu naan suñ bi almet gaa ngi nii ba neexee lakkal mooy yaa ñu moom yaa moom alal ji mooy di siñ Muntaxa daa xam su ma dem siñ Sidi Muxtaar damay jël sama bopp bàyyee ko pare bàyyiwaat ko boppam moom waaw dama koy bàyyee bopp sama bopp dama koy bàyyee boppam ba pare bàyyiwaat ko sama bopp kooku mooy xaqiiqatul murid ñu ko sëñ Tuubaa waxee dëgg dëgg murid ngay mel ni ab néew ci kanam mm-hmm. boobu rek la doon taxqiq buñ waa Daaru ci suñ Sidi Moxtaar yónnee ni ko mm-hmm. dañoo bëgg indi addiyee ji indi addiyee ji bi nangam la kañ nga recevoir loolu ci ñett fan lay dool doolu ñeent sax mm-hmm. Sidi Moxtaar ne bàyyi leen ba ajjuma ci yéen bàyyi leen ba ajjuma ngeen ñëw allahu akbar ajjuma ji ci lañu ñaan Cheikh Sidi Mokhtar ñu war a tey ñu dem yóbbul Cheikh Mountakha addee jooju xam nga ni ñooñu xaalis waruñ xaalis borom leen itteel mooy mission bi sëriñ borom subhanahu wa mbir mi li tax mu mu xaw a neex mooy mm-hmm. bi fi doomi sëriñ Tuubaa yi nekkee ba ba jeex mm-hmm. dañoo jàppoon ni mbir ma àddina tukki na jeex na oh, oh. waaye jëmm jii di suñ Mountakha keroog ba suñu saal yu jógee mm-hmm. ci jotaay ba maa ngi fa woon daa wax wax bu am solo mhm. dafa wax ne saa lu mel nii musaa am mhm. nit ñi jàpp ne àddina lay jeex mhm. waaye nag suñu borom tàggat na ay jëm yoo xam dañu fi bàyyi te kenn du leen foog ca ñooy defar lépp nekkete moom mii ca la bokk kon kon noonu ko doomi Sëriñ Tuubaa yi wóoloo woon ku ci fi bàyyi ko di ko taxaw te ka ko njëkk a impo ka ko njëkk a ka ko njëkk wan nit ñi ki njëkk a wan suñu mun taxaa nit ñi mooy Cheikh Mouhamadou Moutala moo njëkk taxaw ni ko su ma ñëwul del jiite mooy njëkk taxaw ni ko kilifa gi fi bàyyi ko ma ñëw def jiite tamit. Mhm. kon dafa mel ni kon sëriñ Serigne Moutada dafa xamoon mission bi suñu Muntaxa mu dénk ko boo xam ne ko taxaw moom moo fi jógee. mu taxaw ko taxaw Cheikh Salim. Mhm. ba pare. Mhm. mu jógee fi mu julli mu taxaw ko ba pare joxoon ko ndigal ko del taxaw ñëpp. xam nga loolu du ay du du mbirum caaxaan kon doomi Sëñ Tuubaa luñ junj rek mooy li fi nekk. kon daal ñu ngi koy ñaanal. Mhm. Euh, suñu borom sàmm ko te aar ko te mission bii mu yor nag. Mhm. yàlla dimbali ko mu àggale ko ci sagoom ndax ñëpp a ko yéene. ñëpp a ko yéene. Mhm. mooy ko amatum noonu. mooy ko amatum noonu. gis ngeen fan yee bi ko fi gars yi di jéem a kii gis ngeen ña wax ñëpp. ñëpp a ci wax. waaw kon nag alhamdulilahi rabbil alamin dañuy wax rek nii laa narda illa ma yurdi rabbana duñ gërëm loolu lu gërëm loolu suñu borom Cheikh Sidi El Mokhtar métti na lool tiis na lool ndax it lim fi réalisé ak lim fi liggéey dafa rëy jumaa yi lim fi def lépp lim def ci ak bennale tarixa yi ni mu leen defee benn ni mu fexee ba maanaam ñaari it amatut la sa yonente boo xam ne inna inna bni hada sayid wa sa yuslihu llahu bihi bayna fi atayni baxiyatayni sama doom ji ab sang la daa uf useynu daa ni sama doom ji ab sang la